ministère de la jeunesse ku ne xam jeunesse doole bi mu am ci rew mi DER ñu gis ne amna ay copar yu bari yo xam mi ngi fofu c'est vrai wax jeune ak femme mais c'est un programme bo pour cohérence pour cohérence dañ ko wara loger au ministère de la jeunesse parce que ministère de la jeunesse limi def direction yu am solo la wara am am doole pour mën a am ay résultats parce que mënoo ñëw ñu dañu bëgg ay résultats ba pare amoo benn moyen loolu aussi c'est pas possible nee na Fatoumata Tall lu mu baax baax rafet rafet mën a liggéey am ay collaborateurs yu baax nekk un bon management s'il n'a pas de moyen il peut pas avoir de résultats donc je pense que ce programme dañ ko war a loger au ministère de la jeunesse ba pare renforcer li nga xam ne mooy yenn direction yi lu mel ne ANPEJ xam naa ne nag peut-être ñu bari xam nga liñ naan uude moom lu mu wax ci bëy bu feebar rek ñu ne der baa ANPEJ dafa doon un programme important Il ay moyens yoo xam ne amoon na ñu gis ay résultats yu fi def même là on a vu que am na ay pratiquement euh, dans tous les départements yu ci wala les régions am na foofu ay représentation donc suñu renforcer ce programme renforcer li nga le budget du ministère de la jeunesse li nga xam ne nañ ko ci construction citoyenne volontariat ak ASC emploi yi wax ak tout ça je pense qu'on pourra le faire au niveau du ministère de la jeunesse mais ambition bi makna, na mais je pense que budget bi aussi amna na lu ci des li li wax sànq muy vétusté locaux au niveau des euh, au niveau des départements lolo de peu, donne lo ne madame la ministre war ngeen ci gën a góorgóorlu parce que aussi ay locaux yu baax bu ngeen ko amul je pense que liggéey bi aussi dina xaw a doy waar li ci des nag toujours dans le renforcement de ces programmes monsieur le ministre des finances et du budget je pense que li nga vous savez. c'est lay def lu Le président de la république dans sa vision wax a dit agriculture l'agriculture, ndaw donc il dañ ko renforcer.